Serigne Gueye maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay soxna Ndeye Moreau. Serigne Gueye nga jiite association des handicapés euh, diplômés du Sénégal ci yaatal euh, association bi lan moo tax ngeen sos ko. waaw association bi ñu ngi ko créé 2016 pour lutter contre la euh, la mandi la mendicité le droit la dignité et le bien-être ak ñi nga xam ne dañuy dund ak ak laago. parce que dañu gis ne depuis ay jamono handicapé yi kenn boolewu leen ci dara donc gis nañ ne seen wàllu wér yaram ay jafe-jafe la pour ñu accéder ci les les aides techniques mooy appareils yi ñuy takk pour mën a dox gis nañ ne aussi transport public bi pour ñu jël ko problème lay doon et gis nañ ne aussi conditions yi ngay jàngee aussi day metti te boo jàngee ba pare pour nga liggéey problème lay doon donc ñu ne nag euh, lii ñu lim lii bu jugee ci dundu doomu aadama dara desatu ci moo tax ñu taxaw. Euh, xeex pour laaj ak suñu yelleef parce que gis nañ ne euh, euh, nguur yi fi jaar yëpp considération bi ñu waroon a jox handicapé yi joxuñu leen ko parce que jàpp naa ne lafañ la gumba laa gaana laa wala tëx laa wala muuma la wala puune laa warul tax ñu xañ ma sama àq ak sama yelleef parce que nag citoyen sénégalais laa comme ñëpp dama war a samp kër am jabar am njaboot comme ñëpp dama war a xëy dem liggéey wàcc comme ñëpp dama war am kër dëkkuwaay comme ñëpp dama war a am soxla doxi ko comme ñëpp mais bu fekkee ne mënu ma amuma accès ci transport bi su ma jàngee lu ma am ay diplôme itam du liggéey waaw est-ce que kon jaroon na man ñu may former pour may jàng est-ce que man kon sama sama dund dina am kon ci biir donc loolu oui waaw allez moo taxoon. Mhm. ñu en deux mille vingt ñu seeti woon le président de la république monsieur Macky Sall ci benn bataaxal. ne ko monsieur le président. dafa am benn loi bu ñuy wax loi d'orientation sociale boo xam ne ñu ngi ko voté woon depuis 2010 par l'Assemblée nationale loi bi ñu ngi ko voté ndoo ak parité bi mais gis nañ ne parité bi ñu ngi koy appliqué mais loi bi kenn appliqué wu ko parce que dañoo jàpp ne jigéen ñi bari nañ bariwaay boo xam ne nii euh, dina ko mën a apporter dara mais ñun ñun ñun ñun ñun handicapés ko ñu ne ko nag loolu lañ bëgg monsieur le président nga signé ñu décret d'application yi ba pare aussi ñi jàng am am ñi jàng war a am liggéey nga jox leen liggéey moom président de la république monsieur Macky Sall mu tontu ñu ba pare yemul sax ci tontu ñu mais dafa bind conseil des ministres jox ndigal ministre bi ne leen fexe leen ngeen jël handicapé yi ñu liggéey mais boobu ba léegi dara amu ci même ministre bu bu bees bii ñuy wax Gallo Ba biñ ko nommé un mois après ñun seeti nañ ko ak benn bataaxal ma ba fii ma waxee yow nii tontuwuñu donc loolu ñu koy ñaawlu nag di wax nag ñun nag eh, lu ñu mën lenn rek la mooy wàccaat ci mbedd mi yëgluwaat wax askan wi ne kat wax dëgg yàlla suñu àq ak suñu yelleef dañ ko salfaañi fii ci Sénégal. léegi Serigne Gueye euh, loolu nekk jafe-jafe yi nga xam ni yéen a ngi koy jànkoonteel ak tamit mais si biir kuréel gi. Euh, mhm. ñaata handicapé diplômé moo ci nekk exactement ak yan façon euh, handicap la ñu daal di am. waaw ci biir kuréel gi nag ñi ngi toll ci quatre-vingt-dix-neuf. Mhm. ci lañ toll mais handicapé yi ñu ci bëri ay handicapé moteur lañ. Mhm. diplôme yi nag dafa bari te wuute loolu te xam nañ ne ñun état du Sénégal bu taxawoon ci régler problème handicapé yi régler ko yomb na parce que handicapé yi jàng am ay diplôme bari wuñ même quinze téeméer boo jël fukki ak juróom yi nga xam ne ñu koo jagleel sax buñ ko bëggoon mënuñu koo am. Mhm. donc dañoo jàpp ne kon manque de volonté politique rek moo am mais du leneen. d'accord léegi problème d'intégration euh, professionnelle maanaam mooy seen jafe loolu kese euh, mooy seen jafe wala am ngeen yeneen jafe-jafe. waaw xam nga jafe-jafe yi dafa bari te wuute. moom laa doon détaillé. Mhm. Euh, condition yi ngay jàngee day metti pour nga dem jàngi aussi transport bi adapté wul ak nekkinu way laago bi. Mhm. da ngay gis tey koo xam ne da yor pousse pousse toog ci arrêt bi mën na fa def quatre heures de temps pour mën a dem. Mhm. yow bu fekkee da ngay da ngay da ngay jàngi da ngay obligé yow nga créer say propre condition pour man ci génn maanaam bu nit ñi di yeewu ay six heures du matin yow quatre nga yeewu. nga vraiment li ñuy dund au Sénégal metti na trop trop trop trop ba daal dund bi dafa metti dund bi metti na trop mhm. euh, am na sax ndeysaan su dem si yàlla si yàlla na ko yàlla yërëm te xaare ko àjjana bàyyi daam daf ñu doon wax Sénégal nekk fi xarum laadum sax moo gën nekk fi ab lafañ mhm. te effectivement loolu mooy mooy mooy dëgg noo boo jàngee ak loo mën a am xam-xam mën a am xam-xam munoo jëriñ sa bopp sax bay jëriñ sa waa kër est-ce que loolu rafet na mhm. ñu am président boo xamante ne nii ndaw la ñu am président boo xam ne nii dañoo wékkoon suñu yaakaar ci moom mais président Macky Sall dafa tas yaakaaru handicapé yi considéré a à chaque fois que mu génn saa bu waxee ñu jàpp ne problème bi suba mu réglé mais dafa mel ni que ni day wax ci kaw di wax ci suuf ñu daal li ñu gën a jaaxal mooy. Hmm. dañoo jàpp ne président Macky Sall am na benn problème bu am ak lafañ yi waaw loolu moom ñun loola lañ euh, léegi Serigne Gueye. Euh, mm-hmm. gis nga pour xeex Euh, ñàkkum xëyum ndaw yi état wu Sénégal am na kuréel yu mu teg euh, bay mmh. ñaax sax euh, askan jeunes yi souvent mmh. ñuy sóobu ci lu ñuy wax entrepreneuriat maanaam boo mmh. amee tuuti financement nga teg sa entreprise bu ndaw wala si loo mën a jàpp ba mu jural la lu gën a yaatu ci loolu ci lañ teg ay DER bi nga xam ne mooy financer jeunes yi ANPEJ est-ce que yéen jël ngeen seeni dossier monter ko dem ci DER wala ANPEJ pour ñu jàppale leen si waaw loolu euh, def nañ ko parce que dem nañ ANPE dem nañ DER ba fii may waxee yow nii suñu ay dossier mi ngi foofu jotoon nañ ma woo entretien mais boobu ba léegi mbir mi foofu la foofu la yem gis nañ ne nag loolu état yi def dafa mel ni daf ci dafa rax politique parce que da gis ñoo xamante si nii euh, dañuy am sax salaire nekk fonction publique ñu leen di jot ay financement le trois bi passé am na fukki nit ak benn ñoo xam ne juróom mbenn yi man xam naa leen ñi ngi liggéey fonction publique ñu jébbal leen financement bu toll ci cinquante et un millions directeur DER moo leen ko jox le trois bi passé muy mu doon mu doon loo ne dañ koy ñaawlu parce que mënuma d'accord mm-hmm. ngay financé ñoo xam xamante ne ñi ngi liggéey am salaire bàyyi ñoo xamante ne liggéeyuñu am ay projet te ci ñun daf ci am jigéen ñoo xamante ne saan seen jëkkër dañoo dañoo gaañu bàyyi leen ak ay xale ñoom actuellement financement rek lañ soxla pour demal seen bopp mais ko am te pour xeex yalwaan dara gënu ci gaaw lu dul appliquer loi d'orientation sociale bi moo tax ma ne état naam mi ngi def mais ni koy defee man dama jàpp ne baaxul. parce que tam parce que nag aussi tam ñun ñëpp ay citoyens sénégalais lañ. gis nga ni daal yow DER bi amalu leen benn njëriñ daal yéen seen côté moom. waaw du ma wax ne amalu ñu benn njariñ waaye daal. li ëpp ci ñun leen seen bopp. waaw am na am na nag ñu ci gis seen bopp mais bariwul. bariwul mais mais mais mais ñun ñi nga xam ne ñoo tënku ci les ñun ñooy les handicapés diplômés. Mhm. gisuñu ci seen gisuñu ci suñu bopp ñun wax dëgg yàlla franchement. Euh, léegi euh, carte d'égalité des des chances tamit dañ ko teg pour jàppale euh, handicapés yi loo si xalaat est-ce que mbir mi yéen sentir ngeen ko waaw wala déet. waaw carte yi jëmmi carte yi li ci nekk ci carte yi yëpp naam baax na waaye carte yi fi mu ne nii amuluñu benn njariñ parce que carte bi tey boo ko amee tey mënoo cee am sax paracétamol tey carte boo ko amee mënoo ci am sax paracétamol te doon na baax nag bu fekkoon ne li ñu wax ci carte bi lépp mën nañ ko bénéficier wu moom kon macha allah la ñuy wax mais loolu pour mën a nekk il faut que état du Sénégal signé ay convention ak hôpitaux yi def ko ak transport public bi ak yeneen entreprise yi su ko defee su boobaa euh, waylaago bi euh, bu feebaree dina mën a faju gratuitement. Mhm. su su jël transport bi dina ko jël gratuitement. mais mais mais loolu lépp amul moo tax ma ne carte bi wax dëgg yàlla c'est du poudre aux mun naa ne daal njariñ yi bariwul wax dëgg yàlla franchement. Euh, euh, beneen laaj euh, Serigne Gueye 31 décembre bile ñëpp a ngi xaar déclaration bu président Macky Sall comme ni mu koy defee njeexitalu at mu jot. yéen tey hmm? jii seen i jafe-jafe bari na lan ngay xaar ci discours bi. waaw li ñuy xaar ci discours président du dara lu dul rek mu joxe ay ndigal yu gaaw ñu appliquer loi d'orientation sociale bi à la lettre ba pare li ñuy xaar ci moom aussi itam mooy euh, monsieur le président mu jox ñu cër ba pare jox ñu considération parce que dañoo jàpp ne président la république monsieur Macky Sall daf ñoo desee jox cër daf ñoo desee jox considération parce que ñàkk ñu jox cër mënul passé temps yële mu commandé ay ay oto yu bees tàq yu Dakar dem dikk amul benn oto bu ci répondre ak normes yi donc loolu du respect de considération loolu moo tax ñuy sàkku ci président. Mhm. mu delloo si waat xelam. te xam ne adduna rien n'est éternel. Mhm. ay handicapé lañ rek tax nga bëgg leen a xañ seen àq ak seen yelleef loolu du lu ñuy rafetlu te tey bu nekkutoon président mu am doom wala mu am jarbaan mu am handicap dina bëgg ko jàppale dina bëgg ko taxaw ñu nag président daf ñu war comme ni mu waree ñëpp parce que jàppoon nañu ne parce que ñu dañoo bokk ñu ko faral. Mhm. jàppoon nañ ne président bu ñëwee suñu danañu faral suñu ay rangooj mais doy na war kon contraire bi moo am. Hmm. Euh, kon est-ce que kon yéen di ngeen déglu discours bi parce que si heure discours bi euh, opposition bi yeewu askan wi dañoo organiser lu ñuy wax euh, concert de casserole waaye yéen jamono jooju da ngeen di déglu njiitu réew mi wala dangeen di jël seeni bool tëgg. waaw xam nga Ndeye Comba. waaw gis nga parfois euh, nga nga def benn affaire ba sa sa bëñ bi màtt sa bi. Uh-huh. xam nga doo ko dagg. donc président Macky Sall c'est notre président. Mhm. discours am ñun danañ ko déglu quel que soit alpha parce que il faut que ñu déglu ko. Mhm. pour mën a xam lan lay wax ak ak ak. ngeen xam nu ngeen di def tamit yéen. ñu xam lu ñuy def parce que mooy suñu président foog ñu déglu ko donte nag respecté wu ñu joxuñu cër mais ñun dañ koy respecté dañ koy jox cër parce que mooy suñu président. d'accord kon yow doo tëgg bool yow Serigne Gueye handicapé diplômé yi chômeur <laughs> waaw xam nga <laughs> yéen ñi amul liggéey du ngeen tëgg bool war ne ko président otal ñu liggéey <laughs> waaw euh, day kumba <laughs> xam nga xam nga euh, lafañ na la leen lu dul dawali vélo quoi du dëgg waaw euh, yaakaar naa opposition bi ñoom ñi ngi ci seen rôle mhm. ñoom danañ tëgg bool danañ kii parce que ñoom seen rôle lañ nekk am nañ ci droit mhm. ñun nag incha allah ci kattan suñu borom moom ni ñuy tëggee bool mooy wàcc ci tëli rek baare ko noonu la ñuy wala ñu dem palais baare ko noonu la ñuy noonu la ñuy jàmmaarloo ak ak président. d' accord Serigne Gueye Rewmi FM mi ngi lay jaajëfal. jaajëf man maa la war a remercier bu baax a baax. voilà may fàttali yow yaa jiite association des handicapés diplômés du Sénégal.